yëngootina ay sunu deret yëngootina sunu sidit yëngootina sunu deret yëngootina sunu sidit yëngootina bu ñu jóg di way sang be ziar la dafa addiyaam yeesoo jox ko taal bi ñu nekk moom jeex na nga seetal ne nit doon boo xam ne lu daje mukk ci xew-xew wala ci ndaje di yóbbante wu nuyoo ci yow di ñaan ci yow yee salaat jafaram muy ndaw waaye di ndaw lu set loxo ndaw lu am diine ndaw lu baax suñu diggante moom suñu di seede da koy mat ndax ñoo ko ne soxna te suñu diggante moom léegi woon ñaar ak juróom muy koo xam ni dañ ko dénk ci Thiès avant ñu koy dénk li nga xam ne au niveau national ñu ko doon sellal ñu ngi ko doon rafet ñu ngi doon gën a nga ñaanal ko yàlla taxawu ko nga conseillé logum nga li nga xam ni confiance dafa li si def ci moom waaye confiance son excellence de président Macky Sall moom lépp doon ndamu Sénégal ndamu réew mi ndamu askan wi kon ñu le ministre mu joxe kàddoom bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw monsieur le ministre nee na asalaamualeykum moo ngi yëkkati ay kàddu nuyoo ak ay kàddu ziyaara di jébbal suñu ko jébbal suñu sëriñ. suñu kilifa. suñu kilifa. suñu wóllëre. sëriñ Basiru Abdul Xaadir Mbakke. porte parole. xalif général. des Mourides. sëriñ Muntaxa Mbakke. yàlla dogal na sëriñ bi. say njaboot ñoo fi ñëw. taalibe moo sa taalibe moo fi ñëw. ci ndigalu. kilifaam. di président de la république. président Macky Sall. nga xam ni daf ñu tegtaloon ñun waa gouvernement bi. ci màggal gii ñu jëm. ñu jëm. kenn ku nekk li ci dénk. ci gouvernement bi. nga farlu ci. loo mën a taxawu mbokku taalibe yi. ba loo mën a taxawu mbokku taalibe yi. nga taxawee ko. yàlla dogal na. yàlla dogal na. ci biir gouvernement bi. ci biir gouvernement bi. li ñu ci président de la république dénk. li ñu ci président de la république dénk. mooy mbiru économie numérique. mooy mbiru économie numérique. ak mbiru télécommunication. ak mbiru télécommunication. suñu ko doon simple rek. suñu ko doon simple. dañu naan. mooy mbiru jokkoo yi. mooy mbiru jokkoo yi. ak xarala yu bees yi. ak xarala yu bees yi. mën nañ ko wax mbiru téléphone yi. mën nañ koo wax it mbiru téléphone yi. ndax économie numérique. ndax économie numérique. ci yi la juddoo. ci téléphone yi la juddoo. te xam nañu àdduna ni muy doxee léegi. te xam nañu ni àdduna bi di doxee léegi. fu mbokku taalibe nekk. fu mbokku taalibe nekk. ci àdduna bi ci àdduna su yàlla dogalee mënul ñëw màggal si. su yàlla dogalee mënul ñëw màggal si. nekk ci àdduna bi. fu mu nekk ci àdduna bi. bëgg na suivre en direct. bëgg na suivre en direct. màggal bi màggal bi. di suivre sëriñ bi. di suivre sëriñ bi. ay waxtaanam. di suivre ay waxtaanam. waaye di suivre. liggéey bu yaatu. liggéey bu yaatu. wër àdduna. bi wër àdduna. bi nga xam ni. bi nga xam ni. maam borom Touba liggéey na ko. maam borom Touba liggéey na ko. te àdduna yëpp mën ci jëriñ. te adduna yëpp mën cee jëriñ. xam nañu ni tey internet. xam nañu ni tey internet. ak télécommunication. ak télécommunication. mën na tax. fu nit ne ci àdduna bi. fu nit nekk ci àdduna bi. màggal gi. suivre màggal gi. dundu màggal gi en direct. màggal gi en direct. loolu nag sëriñ bi. loolu nag sëriñ bi. yàlla dogal na. yàlla dogal na. bindoon naa. bindoon naa. ay lettres. ay lettres. opérateur euh, téléphone yi nekk ci Sénégal yëpp. opérateur téléphone yi nekk ci Sénégal yëpp. muy waa Orange. muy waa Orange. di waa Expresso. di waa Expresso. waa Free. ak waa Free. et waa ARTP. waa ARTP tamit ku ci nekk. ku ci nekk. jumtukaay yi nga yoroon. jumtukaay yi nga yoroon. nga yokku ko nga yokk ko. ba fu mbokku taalibe nekk. ba fu mbokku taalibe nekk. ci biir Touba. ci biir Touba ak ci biir Sénégal. ak ci biir Sénégal. mu suivre màggal gi. mën a suivre màggal gi. am benn jafe-jafe doo ci am benn jafe loolu nag Serigne. loolu nag Serigne. opérateur yi répondre nañu. opérateur yëpp répondre nañ ma. doublé nañu. ni ma doublé nañu. seen investissement. seeni i investissement. ak seen i infrastructure. ak seen i infrastructure. man loolu da doon jaadu. ndax loolu da doon jaadu. loolu dafa doon jaadu. kon loolu dafa doon jaadu. ma ñëw fii ci ma ñëw fii ci dëkk bu sell bi. bokk ko mbokku taalibe yi. bokk ko ak mbokku taalibe yi. saytu loolu. saytu loolu. fan lañ ci toll. fan lañ ci toll. Sénégal ma nekk ci sa déglu. waaye nekk sëriñ bi ci say ndigal ak sa déglu. ak sa ndigal ak sa ndigal. loolu loo ñu ci mën a tegtalaat. loolu loo ci mën a tegtalaat. taxawuwaat luñ ci mën a taxawaat mbokk taalibe yi ba bokk taalibe yi. nekk ci condition yoo xam ne. nekk ci condition yoo xam ni. dund màggal gi dinañu dund màggal gi. ci mbiru télécommunication. ci mbiru télécommunication. te duñ ci am benn jafe-jafe. fi may terminer sëriñ bi. fi may jeexalee sëriñ. mooy ñaanal suñu borom. mooy di la ñaanal suñu borom. yàlla gën la bàyyi ci kanamu njaboot. yàlla gën la bàyyi ci kanamu njaboot. taalibe yi ci kanamu taalibe yi. sagu yoonu murit nga. sagu yoonu murit nga. mais sagu diine ji yëpp. waaye sagu diine yëpp. sagu sagu Sénégal. yàlla dogal na. yàlla dogal na. dinaa lay fekk yenn saa yi bitim réew. léeg-léeg dinaa lay fekk bitim réew. fekk wala ma fekk la Paris. kon fekkee. kon suñ la fa fekkee. di ñu sagal. di ñu sagal. di nga sagal Sénégal. di nga sagal Sénégal. di nga siggil Sénégal. kon sëriñ. lu ñu la ñaanal doyul. lu ñu la ñaanal doyul. ngi lay ñaanal yàlla bàyyi la suñu kanam lu yàgg a yàgg. mu ngi dénku rek. di gën dénku di gën a sàkku ñaan di gën a sàkku ay ñaan ñaanal réew mi nga ñaanal réew mi nga ñaanal tamit nga ñaanal tamit président de la république président de la dogal na ndax yàlla dogal na yéeneem ci Sénégal yéeneem ci Sénégal kenn naatable wu ko kenn naatable wu ko mais également nga ñaanal ko waaye tamit nga ñaan ko baax moom ak frère am moom ak frère am say wëlëre la ñoom ñaar ñëpp say wëlëre la ñoom ñaar ñëpp président Macky Sall. muy président Macky Sall. ak président Idrissa Seck. ak président Idrissa Seck. seen ànd bi. seen ànd bi. nga ñaanal leen sëriñ bi. nga ñaanal leen sëriñ bi. yàlla defal leen sutura. yàlla defal leen sutura. yàlla saxal ko. yàlla saxal ko. yàlla gën koo barkeel. yàlla gën koo barkeel. dañ ca namm ñoom ñaar. dañu ca namm ñoom ñaar. te it lépp rek di njëriñu Sénégal. te it lépp di njëriñu Sénégal. nekk seen yitte. loolu nekk seen yitte. ngeen ñaanal ñu sëriñ ngeen ñaanal ci sëriñ loolu yàlla gën ko barkeel loolu yàlla di jeexal. di ñaanal di ñaanal. suñu sëriñ. suñu wayjur suñu wayjur. sëriñ Mountakha Mbacké. bàyyi ko fi kanam mu yàgg mu yàgg. yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi lool te wér. ñuy ñuy wét ñuy feddal suñu taalibe suñu taalibe di sant ñëpp di gërëm ñëpp. la seedeel it. di la seedeel it sëriñ bi. suñu mag gii. sëriñ Nasir. di sëriñ Nasiru Diin Ahmed Salim Dieng. muy muy mag bi. taxawaay bu rafet. taxawaay bu rafet la am. bu wér. ci diine ji ci diine ji. ci yoon wi ak ci yoon wi. ca Thiès te fu mu nekk te fu mu nekk. yow la fa nekkal yow la fa nekkal. muy ci Thiès. muy ci Thiès comme ci Sénégal yëpp comme ci Sénégal yëpp ñu seedeel la ko. te taxawu nañu. te taxawu nañu lool taxaw nañu. man ndax man. njaboot la ma def. njaboot la ma def ma rakk la ma def sama goro waaye tamit sama goro la. na taxawaay bu wér. am na taxawaay bu wér. ci yoon wi ci yoon wi. ci Thiès ak ci Sénégal. di sant ñëpp di gërëm ñëpp. asalaamaaleykum. nee na mi lay delloo ko ak nuyu baax a baax. ak mboolem délégation bi nga àndal yëpp. ñëw siyaar ci màggal gi. ak saytu. ndigal li ngeen joxoon. ba xam fu mu toll. nee na ñu ngi koy bu baax. nee na ñu ngi lay sant baax di la gërëm. nee li ngeen di toog sax bariwul lool. waaye waxtu ne ñu ngi koy jottali say nuyoo ak say taxawaay te lool yi mooy li am solo ne li jëm solo mooy jikko ji nga xam ne gis nañ ko ci yow mooy jikkoy ngor ndax daa xew léegi lool ci jamono ñi ëpp ñu yëngu ci wàllu àdduna bu neexee nga seen leen bu mettee ñu daw loolu yi nag as gor du ko def te loolu day yàq ci koy askan ndax nit bu ngeen dee ànd itam ci ngëm-ngëm la war a tege waaye waroon ci sukkandiku ci sa njariñu bopp képp rawatina yéen ñi nekk ay kilifa mbooloo topp seen ginnaaw di roy ci yéen kon lool yi di ko jooji ñu ngi la ciy gën nga gën cee góorgóorlu. xam baax ku te xam ne lu baax de ku ko xaarut ci barab. doo ko fekk. mais Serigne Touba. am na kenn ci seex si kilifa gu mag. parce que koo wax ne ko. gis naa la ngay sonn ci lu baax. waaye lu baax kenn du ko wute noonu. boo dee fu mu xiine nga taataan taw bi mën naa dem ba séet te duy da koy def rek te bañ koo yàqal yàgg yàgg di nga duy nee lu baax noonu lañ koy wute nee ñu ngi doon ci kër gi Serigne Moustapha nee na xamul sa baay la xamul sa mag la nee na waxtu ne ëpp na yaat ay at mu koy jottali sëb nuyoo ak sa yéene ak sa taxawaay amee Saalum Dieng mi itam sëñ bi xam ne ni ngeen demee moom it waxtu ne mu ko koy jottali nee nga nuyul ko président yi gis nga ni koy ñaanal bu baax yàlla dëgëral ko sàmm ko. te gën a dolli wér gu yaramam mais mi ngi lay soññ nag ci opérateur yi ñoom ñëpp ñëw góor nañ góorgóorlu nañ def nañ ay effort yu bëree bëri waaye ba léegi nag des sëñ bi ne gis nañu démb tey jokkoo bi xaw naa jafe lool te li ëpp ci nit ñi ak seegul mais luñ ci mën a dolliwaat fii ak suba rek rawatina fii jege jumaa ji gis na ne woote jafe na ne bii sax xaw naa yaat ci dëkk bi sëriñ bi ne ñu ci gën a góorgóorlu ñoom ñëw ñëpp lu client yi gën a bari ci ñoom woote bi gën a bari set njariñ la waaye nañ ci sedd nit ñi nag waaye nit ku jënd xaalisam jënd kàttan mënta woote mënta wuyu loolu bu yàggee la ko fay jële dana yomb kon lu ci gën a yokk mën a góorgóorlu ci diggante bi ndax jamono jee demee noonu bu jëkkoon yooyu yëpp amu fi woon daaw yàq dara waaye fii jamono toll nag bu coupé rek lu bari lu war a jàll du jàll sëriñ bi ne ñu ngi leen ci soññ bu baax asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf. safar terooti na ay sunu deret yëngooti na sunu sidit yëngooti na ñu jóg di way sang safar terooti sunu deret yëngooti na sunu sidit yëngooti na bu ñu jóg di way sang